Axusubillahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmaaniirrahim alhamdulilahi rabilalamina wassalaatu wassalaamu ala alhaadi alamin sayidina muhammadin ilmakin wa ala alihi wa asxaabihi ajmain ixwata alimaani walislaami walixsaani waliraadati assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki M-Media Group Nourou Darayni ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal àq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhanahu wa taala nungu ñu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñu rëcc-rëcc di leen ziyaare ci weeru koor wi nu nekk weeru sell wi weeru barkeel wi di ñaan si yàlla subhanahu wa taala ci barkeel seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fan yu mujj yu barkeel yi yàlla gën ñu cee fajal suñu aajo zahiran wa batina bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy ziyaare ñëpp nag di leen ndokkeel di jël ziyaar boobu ak néew bi rek di ko teg ci loxol kilifa gi a cheikh abdul ahad mbàkke mu jottali ñu ko mbooleem mbokk yi nga xam ne ñoom lañu siqal liggéey bu sell bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala teewe ko ay déwéni déwén te fajal ñu suñu ajo zahiran wa batinan di jaay sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñoo jàpp ndalal xiiwal yoo xam ne yii dañ koy liggéeyale islaam bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tey nuy ñëwaat ci liggéey bi rek muy wàllu fatwa bi muy tontu laaj yi laaj yi fi ñëw yiñ fi am tey am mbokk mu ko fi yónnee jaarale ko ci jëwriñ ji mu du ngom ñi nga mu rotal ko ci groupe bi muy laaj yooyu kon incha allah ñu jéem cee jublu rek di ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ñu tawfiix bu baax a baax laaj bu njëkk bi mbokk mi laaj day wax xukmu man uxmiya alayhi fi nahaari ramadana day laaj ki nga xam ne kii daa woor ci bëccëgu weeru koor wi nag mu xëm maanaam lan mooy atteeb daal ku woor xëm ci bëccëg gi waaw dañ ko naan man uxmiya alayhi wala mu yufiq illaa baada xurubi shamsi fa inna sawmahu laa yasixu wa yalzamuhu alxadaau inda almalikiyati walshafiyati walxanabilati dañ ne koo xam ne kii danga woor bëccëg bi yépp nga xëm ci maanaam yendoo xam boobu ba jant bi so ne nañ bés boobu koor googu dootul jàll maanaam dafay yàqu day fay bés bu fekkee ni koor gi jeex na lii nag muy ku koo xam ne kii da nga nekk ci koor gi xëm te xëm googu maanaam yendu ba jant bi so boobu bis moom koor ga yàqu na da koy war a fay lii nag bu leen ni ñuy jàngale fiqhu al imam malik ak shafii ak xanaabila yépp ñoo ko wax d'accord nañ ci ne lii mooy àtteeb kooku léegi keneen ki ci tegeet wala bokk liñ ci tegtaloo mooy aay bi yàlla wax ne fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayaamin uxara wal ixmaau maradun dañ ne fi ñu tegtaloo ne kii bu yendoo xam ba ngoon koor gi dootul baax dañ ko dugalale ci aay bi yàlla wax ne képp koo xam ne kii dangaa feebar wala nga nekk ci ak tukki may nañ la nga bañ a woor ba ñibbisi ci tukki googu te ñu ne xëm muy kiris googu maanaam feebar la beneen atte bi ci wàllu xëm googu itam mooy wa ida afaaxa fi nahaari walaw juz'an minhu fa inna sawmahu sahihun ne nañ nag su fekkee ni xëm gi maanaam doonut bëccëg bi yépp maanaam ay waxtu rek la ci xëm wala mu xëm diir bu gàtt daal nga xam ne ximliku na ci bëccëgu weeru koor bi te dalaatu ko ci nee na su boobaa nag koor googu wér na ah, jàll na ah, dara du ko ca war day continuer kooram rek kon daal ci tënk nit ki bu xamee ci weeru koor ci bëccëg bi yendoo ko ba ñent soo bés boobu da koy fay waaye su ximmalikoo nag maanaam xam gi dañ ci bëccëg bi su boobaa du ko fay beneen laaj bi ci toppaat ba tey muy laaj yooyu ñu yónnee Modou Ngom muy xukmu bàyyi zujaajatil xamri al farixati ne daa mbokk moo xam ne mi day jënd ay butéel yu widd xotti butéel maanaam di ko jaayaat di ko raxas di ko jaayaat te it dina ci am yoo xam ne day nekk xotti sàngara maanaam butéel yoo xam ne yi sàngara la defan waaye sàngara sa nekkatu ca mu koy raxas di ko jaay mu ne ndax loolu charia dina ko ko may waaw loolu dañ ko naan in kaanal bayoo liman laa yastaamiluha fil haram fala ba'sa bi dalika butéel yooyu nga xam ne yi sàngara la defan ki koy jënd di ko raxas di ko jaayat nga xam ne dara newu ca su fekkee ni ah, ki mu koy jaay xam na ne du ko jëfandikoo ci lu araam su boobaa jaay googu maanaam duñ ko ko tere dinañu ko dina ko mën a jaay waaye nag su ko leeree ne moom muy ki muy jaay bitel yii maanaam day dem di ca defaat sàngara wala mu jay def loo xam ne lu sharia araamal la su boobaa duñ ko may mu di ko jëfandikoo di ko jaay ndax lima fi dalika min at-taawuni alal ismi wal udwan ndax ne ne loolu bu la leere ne boo jaayee butéel yi kii nga koy jaay nii day dem di ci defaat sàngara wala mu di ci defaat araam ne ne loolu eh, dimbali ko la ci eh, bàkkaar ak ak noonu ko nga xam ne gi yàlla dañu koo tere kon ne ne wa yumkinuka su'alu man yashtariha istibraan li diinika eh, wa boodan ani shubuhat kon ne ne yow miy yëngu ci yooyu daal muy xeeti biteel yooyu nga di ko jaayal ne ne day war ci yow koo koy jaay nga jéem a leerlu ba xam moom boo ko jaayee ci lan la koy jëfandikoo waaw maanaam loolu daal xam naa du yomb lool sax nag waaye it jullit moom daa war a dund dund ak jullit ba ay mbiram ay yëngatoom yépp daal mu di ko natt ci charia waaw kon ne ne daal eh, yow mi jaay butéel yooyu koo koy jaay na nga jéem a leerlu ba xam moom lu mu cay def bu dee ni sàngara la cay defaati bul ko ko jaay ndax ne ne loolu mooy nekk loo xam ne ni mooy seetal sa diine te it dina tax maanaam lépp loo xam ne li ay lënt lënt la yoo xam ne jullit waru caa dugg mu soril la ko kon daal bu dee yooyu daal noonu rek la ci eh, ñi jàngale fiqh wax muy buñ ci dee def lu lu araam daal su boobaa moom duñ la may nga di ko jaay waaye bu dee ni leneen na rek yoo xam ne yi charia nangu na ko dañ la may butéeli sàngara yooyu nga raxas ko di ko jaay ñu ci defaat leneen loo xam ne li moom lañ cay def beneen laaj bi ci toppaat te mooy Modou Ngom moo ko fi indiwaat muy day laaj jigéen bu day gis raagal ndax dina mën a eh, jàng ñaan yi nga xam ni moom lañu ñaan ci bés yi eh, lu mel ni laylatul xadr yeeg yu mel noonu waaw soxna moom bu fekkee ni dafa nekk ci di gis raagal noonu maanaam dinañ ko may sax mu jàng alxuraanul karim maanaam laal ga kay la ñuy bañ mu def ko kon jéem may nañ ko muy mën a jàng alxuraan maanaam ca lam mokkal te bañ a laal kaamil bi kon yeneen ñaan yi tamit dañu koy may ñaan gu mën a doon ci ñaan yooyu rek maanaam dina ko mën a jàng duñ ko ko tere maanaam loolu bu dee ni laal alxuraan la ak jàng ko maanaam góor goo xam ne gi dafa ne ci dafa yor sobe moom lañ koy teree waaye bu dee jigéen moom bu fekkee ne dafa nekk ci di gis regal wala mu am doom ci jamono yooyu muy gis euh, deret jooju euh, bu boobaa lu mu mokkal ci alxuraan dinañ ko may mu di ko tari di ko jàng ngir bañ ko fàtte wala bu ko yittewoo waaye itam ñaan yooyu itam euh, bu mu ci bëgg a ñaan rek dinañ ko may mu ñaan ko waaw loolu moom ñoom it moom lañ àtte ci loolu dina ko mën di jàng noonu waaw jërë ngeen jëf yàlla yàlla dalee fa tafe yeneen laaj yi ci toppaat al oustaz Badara Ndiaye moo ko fi yónnee ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom dafay wax xukmu man ishtara xamran zannan annaha shurbu xalaalin hal yajuzu lahu bayuha maratan thaniyatan sëñ Badara Ndiaye day laaj ne jëmm ji nga xam ne ji dafa demoon di jënd boisson jaawale ko ñu jaay ko sàngara bi mu ñëwee nag ba seetlu ko xam ne da ko jaawale mu dem delloo ko ko ko jaay mu bañ ko ko delloo mu ne sàngara soosu ndax charia dina ko may mu jaay ko wala déet dañ ko naan laa yajuuzu bayuha albatta loolu dañ ko naan sàngara soosu nga xam ne da ko jaawale ba yor ko noonu euh, charia du ko may mu di ko jaayat ci genn anam nag nam koy def kay mooy sañu koo jaay sañu koo may itam waaye itam nam koy def kay mooy xanaa fexe nu mu def ba kenn du ko jëfandikoo mooy mu tuur ko wala mu gas ko def ko foo xam ne fii daal kenn du ko jëfandikoo nga xam ne ci moom la jógee ñu di ko jëfandikoo loolu moom sàngara moom maanaam du ñu mayeb jullit maanaam mu di ci yëngu ci wàllu di ko jaay wala mu di ko maye wala muy lijjantil kenn maanaam genn anam goo xam ne gi da koy mën a jàppandi ba mu am sàngara di ko naan loolu mu jaawale noonu muy sàngara si charia lam ko ca mooy mooy na ko tuur wala mu gas ko suul ko foo xam ne fii daal kenn dootu ko jëfandikoo waaye du ko may mukk maanaam mu di ko jaay loolu moom du ko mën a dagan ci genn anam beneen laaja mi mooy Sëñ Badara Njaay mi ngi laaj aadatul baadi fi talaaqi bi xaytu ida tullixatil maratu tantaxilu an manzili zawjiha mubasharatan hal hiya aadatun am sunnatun day laaj nii ñoo aadawoo di ko fasee nga xam ne eh, soxna si buñ ko fasee rek maanaam jëkkër ji da koy daal di génne këram wala soxna si ci boppam daal di neewi bagage am daal di dem génn kër ak jëkkëram ja mu ne loolu moom aada la wala sunna la loolu kay sëñ bi dañ ko naan aadatun xayru muwaafiqatin li shariati munaafiyatan laha dañ ko naan loolu aada la joo xam ne ji nit ñi dañ ko tàmm di ko def waaye dëppoo ak daray sharia bokkut ak li nga xam ne ni moom la sharia tëral ne maanaam nañu ney fase kon loolu itam dafa dàqoog moom lool lool lool ndax yàlla subhaanahu wa taala wax nañu soxna si buñ ko fasee maanaam nan la war a def mooy wal mutallaxaatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in ne ne ñi nga xam ne ñi dañ leen a fase muy soxna yi ñuy fase ne ne suñ leen fasee dañoo war a toog ca seen néeg boobee nekk fa ak seen kooku leen takkan muy seen borom kër ba ba fóot fa ñetti fóot maanaam salaasatu quru'in mooy maanaam set fa ñetti set maanaam mu gis fa regal daal ba ñetteelu regalam jeex muy dog a génn ci néeg ba bu fekkee ni jubóo ci seen biir suñu jubóo nag su boobaa ci biir ay daji muy póot yooyu maanaam matagut ñu jubóo ci seen biir ñoom ñaar su boobaa fase ma moom day daal di dañ waaye dañuy daal di mën a continuer waat seen ëpp sëy nga gis ni kon xam nga ne nit ki boo ko fasee maanaam ngeen bokk nekk néeg bi maanaam ba lu bëgg a mat ñetti weer daanaka xam naa ñetti weer salaasatu xuru du mat ñetti weer waaye da koy jege lool su ngeen bokkee nekk ci néeg bi su fekkee ni bëggante des na seen diggante yaakaar naa di ngeen war a mën a jubóowaat seen ëpp sëy continue waaye su ngeen mënee muñ diir bu tol noonu ba ñetti fóot yépp jeex jubóow leen su boobaa yaakaar na loolu moom fas mu dëgër fase mu dëgër lay doon boo xam ne bi su ngeen ca jógee kenn du wëlbatikuwaat di bëgg sa moroom yaakaar naa kon loolu it xekk ma la muy ab xereñ la ab xereñ la goo xam ne gi daal yàlla def na ko ci diggante boobu nga xam ne suñ ko jàngatee tey ni mu amee solo ak ni mu amee maana ci diggante boobu nga xam ne diir boobu bu ko nit ki fasee soxna ñu bokk di nekk ci néeg bi comme nañu nekkan ñoom ñaar rek ak yàlla xam ñu continuer seen fase moom ba ñetti fóot yooyu jeex diggante boobu yaakaar naa dina mën a jeex benn jafe-jafe dootu ci am waaye tamit su mënta jeex nga xam ne moom jubawoon nañ ci diggante bi tam gis nga ko kenn du yëg ñu xam ne seen ab say continuer na loolu tax islam moom la mu waxam fii rek maanaam dafa matale lool lool lool ba tey foofu it ba tey yàlla di wax ci wàllu fase moomu comme ni mu ko laajee nga xam ne fase ñaata fan la soxna si war a am dogo dem wala rek buñ ko fasee rek mën naa daal di meebu dem loolu rek mooy mbir ma maanaam dafa war a toog ba fóot ñetti fóot ndax ba tey beneen ay mi ngi waxaat ne yaa ayyuhan nabiyu ida talaqtumu nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa axsul iddata wattaqullaha rabbakum laa tuxrijuhunna min buyutihinna wala yaxrujna illa an yaatina bi faxshatin mubayinatin wa tilka xududullahi wa man yataadda xududallahi faqad zalamahu laa tadri laalallaha yuxdisu baada dalika amran gis nga lii suñ Badara Njaay di laaj ay bii da cee feeñ lool lool mu leeral ko lool ndax fi mu ne gis nga ne fi mu ne ne mu- fii mu wax ne wa man yataadda xududallahi faqad zalama nafsahu laa tadri laalallaha yuxdisu baada dalika amran muy laajam bii di bëgg a ñëwaat nii bi ci topp ci bii may tontu nii ay bii da cee feeñ lool lool ndax gis nga lii yàlla wax ne euh, yow yonente bi yow Muhammad su ngeen faseetee jigéen ñi na ngeen leen fase ñu topp seen idda ba mu jeex idda joojo na ngeen ko takk euh, lim ko ba mu mat muy ñetti fóot yee mu wax nañ ko nekk ak yéen te ne ne foofu ngeen gën fee ragal seen yàlla gën gën fee ragal seen borom te bañ a génne soxna yooyu ci seen néeg yooyu euh, te ñoom i tamit bu ñuy xëccu di génne seen bopp ci néeg yooyu dem di ñibbi lu dul ni dañ faa nar a nekk di def leneen loo xam ne lii ab salaan la boo xam ne bii bu leer la ngeen xam ko nee na lii nag yàlla nee na lii mooy samay ñag te nee na képp koo xam ne kii jéggi nga sama ñag ah, tooñ nga sa bopp te noonu ñu def comme ni mu ko laajee muy buñ ko fasee rek mu daal di meebu ne ne laa tadri laa la laa yuhdisu ba'da zalika amran ne ne noonu ñu ko fasee rek mu daal di meebu dem ne ne du ñu xam eh, ndax beneen mbir mën na caa xew moo xam ne mii day indi ay jafe-jafe ah kay gis nga ko jafe-jafe bi ñu am foofu mooy gis nga eh, dañu koy fase rek mu daal di meebi bagage am dem eh, ay fan yu néew eh, seen mer jeex maanaam ñu wëlbatiku bëgg a defarewaat sëy boobu xam nga loolu buñ ko bàyyi ca biir néeg ba ñoom ñi rek ñoom ñaar ñi rek ñu di ko yëg su jàmm ñëwee mer jeex maanaam jafe-jafe lu koy delloosiwaat du yomb waaye tamit comme li ma wax ci laajam bii di bëgg a ñëw nii muy euh, ñu fase ko noonu mu daal di mee bu dem euh, leneen la muy laa tadri laa la laa yuhdisu ba'da zalika amran jàpp muy leneen mën na caa xew loo xam ne lii day indi jafe-jafe muy gis nga bu si- bu deman noonu te idda ji jeexut sëriñam boobu daal di wàcc ci diggante boobu gis nga foofu itam day daal di indiwaat beneen jafe-jafe xam naa dinaa ko gën a leer ci laajum bi nga xam ne bii moo ci topp beneen laaj bi rek mooy almutallaqatu hal ta'taddu lil wafaati aw tatarisu ida mata zawju xabla tamaami iddati talaaq beneen laajam bi mooy ne ne soxna si ñu fase ndax buñ ko fasee te daam jooju jeexagut mooy iddaay fase gi boroom këram googu faatu leneen ndax day continuer ci iddaay fase moom mu mu doon def wala day daal di wu- def euh, iddatul wafaat muy day tënj waaye itam bu fekkee ni day tënj wala day daw euh, ndax euh, dina doon waajoo ci jamono yi nga xam ne ji fase nañ ko iddaam jeexut waa ji wàcc ab liggéey waaw mooy li ma doon wax fee ci aay bi rek laa tadri laa la laa yuhdisu ba'da zalika amran xam nga ne daa feeñ fii maanaam xamoo lu yàlla dogalaat ci diggante bi loo xam ne lii maanaam su ngeen gaaw a yàkkamtee ba soxna si ñibbi da leen di andi lay jafe-jafe gis nga ko nii gis nga ne ne ndax euh, soxna si euh, bu jig bu nee ci iddaay fase googu euh, jëkkëram jooju daal di faatu ndax day continuer ci iddaay fase googu wala day dem tenji gis nga ko loolu jafe-jafe lay indi bu fekkee ni dem na ñibbi waaye nag muy laaj ndax dina donn donn googu it xam nga ne day daal di indi jafe-jafe bu fekkee ni dañ koo fase rek mu daal di meebu daal di ñibbi euh, jëkkër ji faatu ci biir idda ci ndax su booba yaakaar naa ne su dellu si woon na day bëgg a doon nit su boobaa donn ko du mën a sotti kon gis nga ko lam la waxan fee rek muy li nu yàlla tëralal daal buñ ci dee jéem a dox maanaam du nu bari jafe-jafe waaye saa buñ ko moyee tamit maanaam jafe-jafe da ci daal di nekk ne gàññ loolu xam nañ ko ñu di ko dund ñun ñépp ndax gis nga fii bu fekkee ni euh, waa ji dafa faatu ci biir iddaay fase gi moom soxna si dañ ko naan fa iddatu talaax tantaliqu fa innal mar'ata tantaxilu min iddati talaax ila iddatil wafaat gis nga ne rek kaabu mel ni bu amee soxna si idday fase boobu mu nekkan léegi boobu day baarewu day yàqu maanaam dootul jàll day toxoo ci eh, idday eh, fase ga daal di dem ca idday ténj ga maanaam day bàyyi idday fase ga te léegi nag dem di ténj waaye tamit eh, dina doon dina bokk ci miraas moom maanaam day donn waa ji da koy donn ndax ci biir idda ji la ko fase te idda ji jeexul kon lam cay laaj rek mooy wàllu ñaari idda yooyu duggante idda bu njëkk bi lay bàyyi maanaam nga xam ne boobu jàllatut te mooy iddaay fase gi daal di toxu dem ca iddaay ténj ga mooy day ténj waaye itam dina donn waa ji kon wàllu fase moom mu doon laaj ci noonu ñu koy defee moom gis nga ni ko aay leerale ak kaa bii maanaam laaj bi mu ci laajaat ñëw gën koo leeral maanaam mu gën noo leeral jafe-jafe yi nga xam ne mën na cee am yépp te suñ ko tax doxale woon nee ko sariya waxe te muy buñ ko fasee mu nekk ak sëriñam boobu ci néeg boobu ba fóot fa ñetti fóot bu ñu juboo continuer buñ jubawut mu dogomee wi dem bu booba bu loola doon am kon defe na jafe-jafe yi maanaam su ñëwee ñu daal di koy mën a régler loolu yal na yàlla dool defal tawfiq ak jaay sinu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam